Nabou Nabou ça va ci loo nekk da nga taxaw. ça va. ça va bien. li ma la waxoon Boston. ah ok affaire pot bi. finalement jéem naa lu nekk mais jàllul quoi pot moom mun ñu ko libéré. ma xaar def nga lu la neex rek léegi mën nga dem si yoon lan ngay xaar loo fi defati. Nabou Nabou suma yaay nga yow loo bëgg lu nekk mais dama ciy jàpp wuy ma. lan la. kon may liberté conditionnelle dama. sax ya ma naxoom. kon mi këram. aywa sama taaw bi. kontaan naa si moom de. waaw léegi jeex na. waaw léegi jeex na. bég naa bu baax. <laughs> la yàlla defal li nga bëgg yëpp. am na yàlla kontaan na ci <laughs> العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين ايوا يسمى دوم ديال رسول الله ما كركي لا اله الا الله محمد رسول الله بعد سجوينا يعني نبي عليك waaye jooy waay yow tamit nag. Samba santaat yàlla rek. santaat yàlla rek bu baax a baax. sant bu baax a baax a baax waaye dara jotu la. alhamdulilah alhamdulilah. maa ngi maa ngi alhamdulilah. nañ hmm? mu ngi ko jëli léegi. bien moom faaw mu jaar ci ay tolof tolof. dëgg sant yàlla rek. leen ko sa waay dafay ñëw tey ah sa waay woo. fii si fii si déggante nañ mi ngi ñëw. ah ah waaye lii dafa waroon fekk arrivé bi mooy xew mi dafa waroon fekkee dafa waroon ñëw Eva dafa waroon ñëw fekke bis bi ngay génn dafa waroon fekkee ay bëgg nu rey ak ay sama yëf yow yëf moom moo ko ñun ñëpp ko bokk waaw du sa yëf kese day wax suñu yëf wala nga woowee ko turam. waaw. ok. nga bi. Je rentre, je vais y Déjà Tu es pas de d'origine Au moins, je vais battement 2 à 3 jours. Pourquoi tu es si pressé Papa, ça me place faire. Ça m'a fait tout jacquer. Ah bon D'accord. aller.

sa belle famille papay pot ci boppam laa la wax il était mon meilleur ami mun naa wax ni on était même inséparable maak mais il m'a trahi li ma gën a mett ci àdduna moo ma ko mais tey su ma demee ba sama ma propre fille di dugg ci famille boobu du ma neex li mo waral sama réaction bi ngay gis vis-à-vis de ta belle famille bi ngay wax du ñu koy téye jigéen certes yow tiituma la parce que jox naa la une très bonne éducation tu es une vraie Lopez caractère bi nekk ci man yépp mi ngi ci yow mën nga défendre sa bopp foo dem mën nga fa nekk mais j'ai peur pour la petite Mia ma koy seetaan mën dara dem ci famille bo xamanteni xamna nu ñu mel ñukay jox benen éducation du ma neex la preuve pot su defoon lu wara def mais Eva do nek deuxième position man nga dem s'il te plaît laisse-nous vivre en paix bon déjà je je tiens à te remercier Gisna naa ne géré nga kër gi pas nga famille entreprise nous n'en parlons pas mais je gis ne ba je c'est là qui tu me fais la tête bon donne-moi laaj explication parce que je sais lu tax Moi, je te dois des explications Momo si nga j'ai pris la place de Marichou en prison c'est parce que c'est un choix que j'ai fait Marichou sama je la connais très bien Elle ne serait jamais capable d'endurer ce que Manjé j'ai enduré là-bas elle n'est pas aussi forte que Eva par exemple en plus Moungou soo bu xool Marichou su demee ba elle l'a fait à cause de moi Maman la donne défendre ma fait fekk donc pour moi.. la protéger et prendre sa place c'était juste une façon de lui rendre la monnaie de sa pièce. rendre la monnaie de sa pièce. non Pod tu t'entends parler. Pote, tu nga Marichou famille bi est-ce que tu wecci. Pod est-ce que tu as sa Pod tu as pensé à ta fille si le raisonnement bii nii yëpp ban moment nga xalaat ñooñu ces personnes man en plus le pire man c'est-à-dire vos mensonges je m'en bats les steaks le pire pour man moi que man ngeen fen ma ba pas bëgg ma défendre leen. non écoute vous m'avez caché la vérité. Maman yo je te connais Si je la waxoon dëgg bi tu vas essayer de rétablir la vérité me ma le risque boobu en plus xoolal Eva sama jabar la moom j'ai la maîtrise moo elle j'ai pris au moins le risque de m'avoir coco. quoi. Ah, parce que Eva avec nous..? mais bien sûr. ok donc si je comprends bien Lee, c'était un secret conjugal Eva Marichou ak yow yéen ñett yéen ko décidément. Eva Marichou mais pote ta vie ne tourne qu'autour de ces deux femmes mais pote avant ñooñu tu avais une vie pote Roland sa pote depuis un certain temps problème est am sa ñaari jabar mais lan moo la jaral li mariage bu ci nit di dugg jàmm la ci wër mais amoo jàmm bu dul Eva c'est Marichou bu kii xarawul tey dugal na la pour mais mais arrête. ñoom ñaar laa choisir c'est elle qui font mon bonheur. xoolal oh, déglu xam nga bébé lan la ah loolu passé na et c'est le plus important c'est le présent et ça je suis là on s'estime heureux De loolu lañ doon ut am nañ ko léegi tout ce que je te demande boy, c'est de te taire on garde le secret. Mais c'est à mon tour de jouer le jeu man ngeen de ma pas. nopp gis nga bu fekkente ne dangaa bëgg a continuer ndax sa bopp fais-le toi seul bul ma ci dugal Pote, tôt ou tard la vérité éclatera et le mensonge c'est pas moi gis nga bés bu sama yaay yëgee lii xamal ne Marichou du fanaan ci kër gi te Man, je préfère te laisser avec ta famille spéciale. La première dame, une psychopathe avec des envies suicidaires. La deuxième, une fille de meurtrier. Nice. Tu, c'est ton bonheur. Je, ne te blâme pas. Mais man, je préfère me retirer. Merci beaucoup. Non, nice. maman, écoute, maman, maman. C'est quand même chaque jour, on les Grâce à toi, je suis devenu un homme meilleur. Tu as changé beaucoup de choses dans ma vie. Comment on le dirait en Wolof Tu as fait de moi un kilifa. Je gis un que yaa ngi may dimbali bu baax pour suñu relation maak Pod mu comme avant mais le mot gën a neex Oui. que... tu as fait de moi un homme pire. maanaam ku fonk diineem koo xam ne waxtu du ko raw te c'est rare de nga gis jigéen boo xam ne que da lay pour nga fonk sa diine sa religion te yow loolu nga def ci man ah moo tax nag ku def lu rëy am lu rëy. mooy lan. Ah, lii maa ko andil. just for you. Hmm? Nah na la. ah mais Julika man xaw ma woon ni nga romantique sama gën la di santi, udah cuman, wah enak sulit kali ya lii yëpp neex na su ma sañoon ma doon sa soxna. rek pareegoo. pare woo soo pare woon nii nga koy waxee. pare ngaa ñoo doon sa soxna. sëy la sëy bu rafet. non pare ko bàyyi soo pare ko. waxoo joli kër. yàgg na. waxal pare naa bi ma dégg ko ba. joli kër. man magi pare naa. est-ce que par nga pour doon sama jabar. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien Oui, on va très bien. Euh, je peux avoir euh, un café noisette. Un café noisette. Oui, un croissant au jambon. Un croissant au jambon. C'est possible. Oui. Et je peux avoir le code du wifi aussi. Le code du wifi, bien sûr. Allez, le voilà. Merci beaucoup. Ok, bon, vous kontaan nga sax daa ëpp man. Eh, gis naa loolu gis naa loolu. <laughs> bi kay da maa manqué woon trop waay. maa daw nag bilaay. ma mm-hmm. toogee yëpp sama xel day nekk. wallaay wallaay góorgóorlu rek. yéen laa doon xalaat. wallaay <laughs> kër gaa ngi tàmbali doog neex nag. neex neexu kër gaa ngi doog a tàmbali. ne. maaleykum salaam. mbaa dara jotu la ah waaye sama xarit waaye nii la boo xamulee lu xew da ngay dem seen kër ba fagar waa dikk ah ana waa kër gi mbaa dara jotu leen yow toogal toogal. non garaawul bàyyi ma dem yéegal sama bagage. bagage maa ko yéegal. Ah, ma ne ah. eh, eh, xoolal eh, yow bagage. Ah. moo toll loo ma yow loo def neex eh sa ko ay tey. laaj naa ko. <laughs> maa ngi ñëw defal la calendrier bu baax. <laughs>

Tu as trop souffert. Eva, je te dois beaucoup. Voilà. Je veux être ton serviteur. À partir de taille. tes désirs seront des ordres loo bëgg ci lay je te dois beaucoup tu es mon amour tu es ma femme

par Mm -hmm. Je t'aime. Eva Lopez Job. Je t'aime aussi. Taïmoum, je suis là. T'es il y a une semaine. Yaakaaruma woon sax quand que dit dina ma fekk fii fini mais nag loolu je pense que dama koy sant mais je voulais juste rek clarifier benn affaire surtout à toi Marichou comme ça nga xam ko tey. Marichou foog nga xamné depuis le début la Eva xam du man ma ray Mati te yow mii la man m'a ko wax nak parce que je la connais et j'avais mes raisons Marichou gis nga Eva mako ko yar xam ko bu baax. Je savais que je pouvais compter sur elle. Je n'ai pas voulu prendre le risque. bàyyi ko mu découvrir ko boppam te foofu que ne doon na gën a mais là, j'ai fait un choix te choix Bob. Eva je ne sais pas. comprendre te bëgg nga xam gis nga je sais à quel point je compte pour elle te choix bi ma defoon si c'était à refaire dama kay faire. tout simplement parce que je suis fi mako toll maintenant le plus important c'est que je suis là ne sais combien de temps la finale. mais une chose est sûre je ne suis rien sans vous deux dama ne soxla pas ñaar mënuma dem and ak kenn ki

mooy dab sa bànneex te di wuyu ci say waaw loolu kese la ndax li sama yëf yow yaa yor suñu caabi aljana exactement su dee wujjee pour bégal la rek loolu rek laa yàkkamti woon ndaxte pour baayu miyaa rek lu mu bëgg rek laa koy defaral te nag li fi jotoon a xew temps yi passé doonul woon sax li ma gënal. Eva li fi jotoon a xew. weesu nañ ko. instant bi li nekk suñu kanam lañuy xool. te bu ma sañoon. sa ay. danga koy jël léegi nii. ndax seen lune de bu yeggul woon. ngeen yeggale ko. <laughs> Bien, c'est toi Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. tu vas bien Oui, je vais très bien. Regarde tes cheveux. T'inquiète, tu veux coiffé, Attends. Ouais, va. Mamie, y'a comme on dit eh, t'as mis donc t'as mis de. Moi, c'est jamais. Mais ça te va très bien. Merci. Est-ce que tu sais que tu m'as manqué Moi de même. Je te demandais chaque fois. <laughs> je vous adore. Je vous aime..! Vous êtes mes amours. Bye boy. waaye man dama la namm. maa la raw da ngaa dama génnoon. ah ma fekkoon ya, naa la sa néeg gisuma la. Ya, bu julli sax da ngay naaj si ah gis nga ko de. maa yaay siir nag. mais bàyyi may ñaan bu baax sax. yii temps yi cat ak làmmiñ dafa bëri. sama kaw ya, instant bi siir. heure moo jullee yow rek laay ñaanal. ah ñaanal ma de soxla naa ko de. laay ñaanal. soxla naa ko bu baax ngi lay ñaanal bu baax. man dama bëggoon sax ñu waxtaan waa jàmm la. ah kon kay alhamdulilah. te moo gis si kër gi da nga hmm te yow kese nga nek ci kër gi fi worul foog nga am ko lo la hmm mo yoon sax. hmm ya ngi fatali ki ma fi andi won ne maa mom dañu bëggante. ci topp. maa koy fatali ko baax loolu kay si ma ko fàtte mukk. ko moom maag mom dañu bëggante bu baaxa baaxa baax hmm baax. maa fiancé wonañ tay hmm te yaay dama ko bëgg takk incha allah mu doon sama soxna ñëw say civil kër gi d'ailleurs sax prévoir naa benn somme pour may bu njëkk trois millions laa bëgg mais vu que yow da bëgg yu rey ma ne xaamal laaj la ba pare sa avis quoi s'il le faut ñu yokk ko mais nag xoolal bàyyil ma trois millions yi rek parce que dama bëgg loo xam ne que day simple buñ fi nekk di def xew yu bëri xam nga yow moom. yaay. takk nga ma wax ne takk. yaay lan la. non yaay. Marichou foo jëm ak sa contingent meew bi. sama alib ci waañ bi lay dem damay toog laax. laax. ma defe ne Eva dafa commandé reer tey. um. sama yëf dafa bëgg laax. te xam nga ne laax bii yàqul dara ci reer bi. wax nga dëgg. Yo, ik heb een affair. Ah, ik is niet, ik aan, <laughs> O perfect bu que sa caabi yi nga may doyee tegaloon que la ko ci salle de réunion bi au cas où boo ko gisee. ah bon bàyyi ma si woon sax xelam. mais comment ça se fait nga woolu ma ma ñëw ba fii te waxuloo ma dara nga nekk Elena. je t'amène dans un si beau cadre et tu te plains. Décompresse. C'est une blague ou quoi Mais Momo, xanaa da nga fàttali la dernière fois vous pare ma ñëw ba comme si de rien n'était. Bingo. Bon. Laisse-moi d'abord te dire que votre autonomie est conditionnelle. Ah bon Mais c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, Motard. Ça m'a amené à faire un mea culpa sur ma personne et tout. Je sais que j'ai été très dur ces temps-ci. Je sais que j'étais.. t'ai maltraité, mais c'était juste qu'il y avait énormément de pression sur ma personne, la famille, le procès de mon frère, Beat Perfect, etc. Mais je tenais quand même à m'excuser par rapport à tout ça. L'Himalaya Fateko, c'était pas le bon moment. J'ai entièrement confiance en toi, mais il faut que tu le saches. <laughs> Voilà. Enfin j'ai retrouvé le moment que j'ai connu avant. C'est juste des excuses. <laughs> Ben. Tu ne changeras jamais. Je vais aller passer la commande. D'accord. Alors, euh, vous me proposez quoi Je vous suggère le Money Cheeseburger. Mmh. On a aussi euh, des mini sandwichs à 400 francs mini mini thon et mini omelette. On a aussi des brochettes. Elles sont excellentes. Ah bon Oui. Bon, donc euh, je pense que je vais prendre mhm. euh, un menu cheese. Un menu cheese. Euh, un mini charcutier. Un mini charcutier. Et une bruschetta, vu qu'elles sont excellentes. Ok, donc. Et en dessert, vous me mhm. donnez deux crêpes au Nutella. Deux crêpes au Nutella. C'est bon Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. C'est bon. C'est cool comme endroit. Ça fait des décontracté, j'aime bien. J'adore le style plein d'air. aywa réew fu mu toll. livreur bi lay woon depuis sànq. livreur. sama ah, Ça va yëf. toggoon naan laa ci biir. Mia. ma da. may <laughs> da. na sax. waaw. t'as toujours mangé. ma ne ko ngeen de. tu veux pas attendre le dîner de l'homme. non. naa ko guddi kat. tu veux manger. moom xam naa ne. da ngay maase. eh da ngay

bokk leen gémmiñ de bokk mu doon ku du. waaw bokk leen gémmiñu mag ak gémmiñu xale bokkul. bàyyi nag ah. neex na de. baax na daal instant bi bari na nag xaaral ko mu ñëw may la. may ma si may ma si. Hmm, amul problème tonton Tafa ma def xaale la. Hmm, mus lañ mus ci tuuti rek. waaye léegi dafa nag xanaa léegi ndax ñu dañuy reer benn yoon kon. di la rek entrée. ci waaw baax àdduna bi di bisimilah jàmm mu yaay. ah man de jarul fukk moom mën nga taxaw rek fu naa def jaru بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الشيطان الرجيم Pot wax nga bismillah soo mi lu lañ ciy def nag. mais neex na nag. c'est que nag xam nga man laa mooy sama point faible. ah waaw waaw yow kay. c'est que damay ragal dugg ci. reer bi ñëw du ma mën a def Eva. rek rek. Eva kat maa ngi nga Eva. waaw boson mi ngi ci wàññi xam nga. indi ko. ma commande fu mu toll. يفضل كدابة lan Lama paan frère bi lama am moo gis nga boo jógulee sa bopp yàlla xam nañ di nga paan jógal sa bopp jógal sa bopp kii dafa ami gaa laaj Moustapha ah bañal àggale li ñaari jéeg bu nekk ci kër di sëy ngay wax di jaxase xaanaan nga moto yi ngay bu ko jox tey ko fee rek moom dina ko jox eh buy ma bàyyi sa ni nga nekk te wut baax na gis nga omoto bi paan na bi paan yaay paan toogal rek. toogal rek. non mm. attends c'est que tamit nag tonton lii dañuy ñëw rek amul façon commande dina ñëw léegi moom la fa la toll. muy toll moto mosu fee paan ñun lu nu mos a dañ ko lekk waaye tey nga ñëw rek fu muy moto yi paan am na lu jar am na lu jar moom moom laax moom neex na surtout soo. neex na moom daan ko xaar moom ñëw bu ñu sa na sa xol sedd nan yeewu nekkee ko Moustapha mag du wax safaan daa lekkal waay en tout cas wayal bi bi neex na de ko sax neex def ndax tandu tandukat moom xam naa moom bu doon football kan moom yaari moom dina bëri ci tandu rek Mia yaa ngi neex na mais wajul yi sama meew ko Aliou. des na nag ci waañ bi jeg bu ay rek mën na ko jël jëfandikoo ko. suba de moom laay hmm, loolu neex na. Hmm? du ñëw du ñëw li ma la wax téere la du ñëw du mos a ñëw toogal nag nii bañ jog sa bopp di def say affaire waaw te xam nga lii rafetul ñëpp di reer nga mer nii di reer man man loolu mënuma ko di Oui ma Mon naa bir. Je ci bir ma bol ga comme a bon ça. Mmh, super Dis-moi, je te devais pas une surprise par hasard

naan mon grave. mon problème. Euh, regarde-moi ni tout dara donc ça peut arriver accident cassé là. du ci Il est pan la c'est C'est mën li nga def def tax ma de eh, eh, Je t'aime, tu sais. Baba, il y a des gens qui ont été en train de se faire. def li waay man maay rus man maay man mii man maay mujjee rus nag grave dégg nga raw ma si dégg voilà c'est l'intention qui compte d'accord Bonjour. Bon, tout d'abord, j'espère que vous avez déjà téléchargé l'application Maroli TV sur votre smartphone. Voilà. Si vous l'avez déjà, je vais vous expliquer quelle est l'utilité de votre onglet favori. Pour les amateurs, par exemple, de la série Pour des vous avez envie d'avoir la série dans vos favoris. C'est simple. Vous allez sur Menu, voilà, vous cliquez sur série et ensuite vous cliquez sur options et vous ajoutez à vos favoris. Et là, c'est simple. Vous avez la série pour des maréchaux dans vos favoris. Et l'avantage, c'est que vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. De ce fait, vous pouvez tranquillement regarder votre série et les conneries de Momo et tout ça.